kon nak si ñi ngi lay ñaanal yalla yalla doli la barke dolila la sam doli la sutural doli la yok légui nak dañu bëggon rek jox sëriñ bi mu sanni kaddu yu gatt ñaanal ñu si mang ci fi ne nii moom mang ci ñi nga gis ñep yalla dogal na dañu jël sen nosé tek sama loxo attanu ma leen nag ma jëlaat tik, ak sama bos boole ko jox la léegi nag ñi fi ñëw ñëpp si bëgg naa ñu yokk jël naa fi ay engagement yu rëy nag am ko fi indi fan yee passé sànq rek am na ko fi indi ay reer yu bëri ma ne ko fii ak ñeenti weer boo gisul sa bopp ci li nga def bu dee bu déwénee bul indi reer yooyu nag boo gisee ma koy wax teguma ko fenn fu dul xam ni di nga ñëw te leer na ma ni soo ñëwee la ko yenn te su ma ko yenee di nga ko yenn mag ñi ñëw attan nañ ko kon nag ñu déglu sëriñ bi sëriñ ne mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp joo rek man sol sama tarbiya la sëriñ bi ne maa ngi nuyu bokk yi sama di cheikh Mouhamad Xaafid bu Seydi Aboubacar Mansour nuyu Serigne Cheikh Omar Kan ñu déglu nuyu Alxaaji Malick Dieng nuyu Oustaz Modou nuyu oustaz Pape Hann nuyu ñi nga xam ni ñoo ne ci tànt bi te gisuma leen ziyaar leen ndokkeel leen ndokkeel leen ci gàmm gi muy guddi biig gi te sax ba léegi guddi gi jeexagul nuyu way juru fàndaw di suñu goro nuyu way juru saam nuyu nag ñi bokk ak saam yépp nuyu xaaj saam ñu dellu siwaat fii ci jataay bi tey muy dellusi ak sant yàlla toogoon nañu fi daaw ña ñaanoon yàlla fekke yàlla may nañu ñu fekke ba mën teew kon ñu ñépp ñu bokk sant yàlla te ñaanaat yàlla mu may ñu ñu fekkee déwén déwén boobu bu nu ko fekkee sëriñ bi ne yàlla nañ ko tal di ñaanal yàlla xalifa bi sëriñ Babacar Mansour yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram bi mu ñu sagal sagal ko diine ji sagal ka tariqa bi sagal ko maamam yàlla na ko yàlla sagal sag bu ëpp yaakaar ñaanal yàlla suñu mag Serigne Cheikh bu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour moom itam yàlla guddal fanam amiin di sant bala ñoo wax dara alxaaji aas ndaw ndukkumaan bu cheikh sayid muhammadul mansour ci teraanga ji nga xam ni defal na ko sàmmi te lii nag mooy li feeñ ku ne xam na ni bâche bii yombul mu kilimatise yombul lu cher lay jar bu ko mënee bàyyi moom bàyyi kook saam sëriñ Habib ne wax dëgg yàlla fawuñu sant ko aas nit ku baax la yal nañu yalla wootu ci mom fayal nuko lu bax lu ne bo fa de wër as dang ko fay fek ludul lu bax do fa gis as as kontan nañu yalla yalla fay la sëriñ mu ni ñun nak suñu tank du ñew fi di conférence gam si wuñu waxtaanuñu li wax rek dindi tuuma wolof commentaire am daf cee gaaw dafay commenté ba wax lu ko wóorul wax na dëgg xalifa mbay bi mu waxee ni bés bi buñ ñu ci gisul sëñ Moustapha Sow mu ngi ziar ba mu ngi ziar Moussa ñu ngi dalal kilifa yi door a agsi ñu ngi ñaan ci biti ñu baal ñu wàññi coow li tuuti rek ñu ngi ñaan ci biti ñu wàññi coow li tuuti rekk bàyyi xel kilifa gi ne ci sunu biir ñu ngi dalal sëriñ maam Abdul Aziz si di rakk sëriñ bi di jarbaatam bismillah nee maa ngi nuyu sama sëriñ sëriñ mu ni maa ngi nuyu sama sëriñ sëriñ Maam Abdu di sama doom di sama rak di sama jarbaat mi ngi ànd ak mbokkam sëriñ Abdoulaye Thiaw laay maa ngi fi fekk itam soxna yaa mari si bu ndijaay cerno saidu nuuru si bu cheikh alxaaj abdul aziz maa ngi leen di ziyaara ne maa ngi fi gis sama ñaari doom di fatima saw ak xadijatu saw tabaarakallaahu ak aminata ndooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak maam Malick sa doom ah, ak maam Malick sama rakk ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar suñu ñëw daal dañuy gën beesal rek suñu digganteek saam ndax diggante daaw ak ren lu ne xaj na fi soppeeku xaj na fi dox fi lu ci bokkul xaj na fi ñu wan leen ni dara soppeekuwul dara it doxu fi lu dul saam fa mu nekkoon démb ma nga fa fa mu nekkoon démb fa la nekk ba tey ñu koy ñaanal yàlla yàlla àggale tarbiyaam taxawu ko yàlla bu mu juubu ndax juubu dafa yomb léegi ci ndaw ñi ndax bës ak ñu lay topp boo amul tarbiya defoo attention mën nga fàtte lala fal te sama baay nee na radiyallahu anhu nee na am barke am alal nangu ñu yilif la loolu nag lu jofe la bu la yàlla joxee barke jox la alal jox la cër dootoo nangu ku la yilif moom nag yàlla nga ko ciy defal sutura ba léegi nii fanaanagul fu ñu yëgul yenduwul fu ñu xamul du demit du defit lumu ñu tàgguwul besam bi limu koy fonk fonk wor na ma ni sëriñ bi ne su ko na fi yam mu yam fi bo amé njabot nak njabot ga yam ci sa loxo deggal la loko digal mu def loko téré mu bayyi fo nek mu fekk la fa lo nek mu and ci ak yow bu amé bisam war nga ñew tok ci wétam ba ñepp xam ni yow la am lolu kat moo indi waye du leneen bu dé taxaway ñi fi né di taxawu bés bi mat nañ ko man nañ ñoo wut waye ñun mom suñu ñew dal dafa bëggoon rek ngeen gis ñu ñu gis leen ngeen xamni yeen ñoo bokk bés bi te saam mi li muy def ñun ñoo ci ànd ak moom bu ñu gisoon leneen li nduroowul ak lu yàlla lalul duñ ci dugg ak moom mbaa su boobaa moo cay wéet ñun ñu toog suñu kër fa tabaarakallaahu ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaanal yàlla mbollem ko fi tew yan yalla fecc sa aajo yalla bu mu nek suñu mujj dajje serigne bu ne mi ngi nuy sam geey di ñaanal yalla Sam geey Mom. daf ko wax niko man rek serigne Habib mala wara sant ndax fepp fuma waron fete sam sam wutuna ma féete fa saam saam daal yàlla na la yàlla saamal ba nga doyal te sàmm la saam yàlla na la yàlla saamal te sàmm la sàmm la saamal la sàmmal la yal ko yàlla def ñaanal yàlla suñu doom suñu lépp is cey sering bi neena mi ngi ñaanal domam leppam sëñ fandaw yalla na ko yalla taxaw sing fandaw yalla ko yalla baye ak sëñ sam amin mu taxaw len barkel seen njabot fandaw deug la xale bu bax la bu dal la xale bu nangu kiliftef fa ba mu ak sàmm ba léegi mi ngi koy jàppale mi ngi koy taxaw te ba muy ànd ak sàmm booba sàmm mbub mu ma jot aw ma woon dara fa tabaarakallaahu boobu ba léegi muy muñ ñi ngi sant képp ku ñu tuddul ngay soppe wala xarit ku fi yàlla andi te jëmmi saam andi la ci suñu kàddu yàlla na yàlla fay la di ñaanal yàlla xalifa bi yàlla na yàlla guddal fanam di ko ndokkeel ci gàmmu gi fa tabaarakallaahu ndokkeel ay rakkam sëriñ Alxaaji Malick si Maodo sëriñ Babacar si Abdul Aziz ak seeni rak ñi ngi ziar ñëpp di ñaanal yàlla suñu wayjur yooyu ya ca Tuubaa ya ca njaasaan ya ca canaba ya ca yoof ya ca kawlax ba ci ceerno Seyd Mouhamadul Bachir Taal suñu fépp fu kilifa nekk kilifa diine yàlla na yàlla guddal safan fan yokk sa wér Seydina Cheikh mi ngi ndokkeel alxaaji Saam fa tabaarakallaahu suñu jigéen yi kenn mànkewul soxna xawakan bëggoon na ñëw di suñu soxna waaye yàlla dogal coono yeeg xataay bi ma ni ko daal comme ba léegi nii yaa ngi ci waañ bi nekkal ma ci waañ bi bàyyi ma demal la ca tànt ba duma leen tee ñi ngi ziar ñépp di ndokkeel ñépp di tàggu ñëpp nañ tàllal sëriñ bi ñaan ñu yewi ko moom rek boo ñu paree tey moom dañuy teel a tas tey moom si maa ngi lay waatal nii fu 10 heures jote ñu ñaan <laughs> Seyd ab Abdul Fattah Sall ah Oustaz Alxaaj Mansour Gaye jàng yi de moom sëñ As ndaw jàng na jàng yi ndax dégg naa fii mi ngi taw waaye kenn yëgu ko te kenn yëgul ni kat mi ngi taw dañuy jox dañuy tàllal ñun ñëpp sëriñ bi ñaan ñu yewi ko nànk bu roj bu demee ñu bàyyi oustaz Pape mu continuer ba ci kanam ñi fi des des fi borom gàmm gi ñëw na muy alxaaj Pape Malick Mbaye na ñëpp tàllal sëriñ mu ni jàng fatiha ak salaat al fatiha saam sëñ bi nee na tey la nga waay ah si kon de xaaral ma la rek laqad xaaba annaa سيد القوم خادم رضينا بقدر الله والله حاكم سباي بروم دارجي ميغي جوي بايام ميغي نان فقدناه شيخا كاملا, كاملاً, كاملاً ومربيا وغابرنا بالأمس والخد داهم أترحل عنا يوباي أنت فينا لوالد أليف رؤوف طيب القلب سالم أتتركنا يا عم قد قد كنت عندنا أبا عافيا بل أنت للغيث كاذم سبعين فشم شدنا غابت ولم تر دفنه تر دفنه وماء البحار وماء البحار سكنت والعوالم سكنت والعوالم ألمت من البلوى باي فتكوي نفوسنا فتكوي نفوسنا وغارت قوانا وغارت قوانا حين تجي الأزائم حين تجي الأزائم سبعين تأثرت الأكوان تأثرت الأكوان عبد تحسرا عبدا تحسرا فكل فتى من موته متجاهم لقد ملت الدنيا وضاقت فجاجها وحير الورى بابا والختم للكل واجب فقلبي بكى فقلبي بكى دمع العيون علامة تدل به والقلب ليس يكاتم بكينا وتبكيه البلاد بأسرها خليفة شيخ الحاج بالحق قائم بالحق قائم بكاء الورى طرا أصيب بروعة بكته زوايا والكتاب المحاكم والكتاب المحاكم علمت بأن الله يفعل ما يشاء ولكن ركن الدين هاب وراضم ولي جواد شاعر ومعلم حليم وقد دمت عليه المكارم تقي زاهد ورع عفيف نقي صادق حسن الفعال ملاذ الناس في دين ودنيا بزول دون من بالنوالي شجاع في اغتياب واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد إنه بحر خضم وهوب دون عجد كل غالي كثير قل حمال كل لدى الزواري بل حسن المقال حليم بل صبور بل صبور بل صفوح بل صفوح شمائل كثرج وزلال يطال لخي جنگ فاتحة أك صلاة الفاتحة سرين بكسل يوينك nañ bàyyi xel ñépp laa ci yemale ku ci dem sa jataay du ma fa jóge te tasul amin amin suñ pap bu ko defee kon ñu ñu bàyyi sëriñ bi moom rek la ñu yeewi ñëwal xaaral bàyyi ko mu ñëw barakallah ñu bàyyi sëriñ bi seydi mouhamadul habib mouhamadul mansour di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral